xool Sénégal yi loolu baaxul ci moom mais defu ko mu du ko sax yéen à bii nekkuma ci à mais photo yii moo gën a triste ci képp koo xam ne di nga am xolu yërmande lan la wax ci photo yi dafa am sax lu ma bëgg a leeral foofu daf ne rapport gendarmerie bi wax na ci photo yi c'est faux xam naa loolu tam lu bees la ci yéen. enquête bëri bi mu ne wax na ci photo yi c'est faux waxu ci dara xam nga fekkee da wax di wax nag di def ba mujj da ngay jaawale rapport gendarmerie bi ŋaangul ñeppiwul capitaine tu li mu wax ci rapport gendarmerie bi yépp amul waxu photo parce que loolu doom naa xam sax capitaine Touré bi bi enquête bi jeexee la ci te nee nañ photo yi après enquête bi la kon nu ma ci accusé kon photo yi newul ci rapport gendarmerie Ousmane Sonko xeyna amna am na fu mu jëlee wax ko waaye photo yi kenn tuddu ko ci rapport gendarmerie mais photo yi amna ci dossier war na len foofu leer waxul ci photo yi mais loolu problème sax mu wax ci mu bañ ci wax boo ngeen ko xamul aussi en tout cas war na len meuna bet moy procédure bi mu commencé ca section de recherche ba mu ñew ci procureur procureur saisir juge d'instruction juge d'instruction wo len ñom inculper len enquête ba mu jeex mu yóbbu ne nañ leen àtte proxénétisme amu ci hmm? proxénétisme bi mu ne dama dugal photo yi pour charger Ndeye Khady Ndiaye pour proxénétisme daa amul sax ci dossier bi proxénétisme mooy koo xam ni dafay jaay boppam ki koy dimbali di ko wutal ay client wala di ko wut fu mu dëkk wala yooyu kooku moom la ñu wooyee proxénète moom nee na Ndeye Khady Ndiaye dama koo chargé bëgg a wone ni moom day wutal Euh, euh, ay ay day wutal euh, aji saar ay góor ma ne naan laay chargé day xat jaay proxénétisme alors que dossier bi ba mu jeex amul proxénétisme xanaa loolu leer na nag na génne benn fu ñu bindee proxénétisme gis nga même capitaine Touré dégg naa Pape Alé Niang liir ni capitaine Touré wax na ni xaw ma lan dañu bëggoon topp nday xat jaay proxénétisme capitaine Touré bi doon def enquête bi sax bindu proxénétisme ci dossier ci eh, kii bi ci ci ci inculpation yi mu visé maanaam euh, li mu tuumal ñooñu bindu ci benn infraction bu nuru proxénétisme kon xam nga loolu leer proxénétisme amul ci dossier bi dossier bi bi mu ñëw du man maay procureur man maa jël dossier bi jël sama réquisitoire introductif ah le 9 février incitation Ndeye Khady ñi ko incitation à la débauche diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs ak complicité de viol Ousmane Sonko ñu topé ko viol ak menace de mort ana proxénétisme juge bi tam bi mu koy inculpé loolu la ko inculpé waxul proxénétisme juge bi bi koy renvoyé loolu la ko renvoyé amul proxénétisme Moni ne man damaa singale Ndeye Khady pour proxénétisme te nga wara a xool sa dossier yow nga wara a dem ba nga mais loolu triste na mais am na leneen lu ko gën a grave am na lu ko gën a triste mooy daf ne bi ma toppee lu tax ma bëgg